nous ñun lu ñu jàpp mooy société yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jox ndox lu ci mel ni seen Sen'Eau wala SONES faw ñu am doole ci wàllum koom-koom ndax su amul rek day am ay jafe-jafe loolu moo tax nguur gi xam ko bu baax te fas leen yéene accompagner. Euh, waaye nag man bi ma ñëwee ci ministère bi li ma fi fekk mooy ab arrêté bi nga xam ne li mu naroon mooy yokk njëgu ndox mi ndax jafe-jafe yi nga xam ne ñii di waa Sen'Eau ñu ngi koy dund. parce que comme il y a une sorte de déséquilibre et de difficulté au niveau waaye bi ma ñëwee li ma njëkk a def mooy dàqal arrêté boobee ndax jàpp naa ne ndox mi waruñ ko yokk benn yoon waaye dañu war a wut ay yeneeni solution